xabtal waral may sori heen jikko ceddoge may teepa duma talal heen envie dalay benn góor foog ngay jéem bañ xolli keneen yor ndaxte kuy bërëy daan xëlay paan dekkaane sulay taan dalay bàyyi nga xund ba noppi mu soog a dikk di reetaan caalit bi mooy ban mbalit des koy an fexe ba bërëng sa ceel ba ban ci ndey na suba gi pare ndax lekk na coow ñu ngi ci xare ku nekk na joow ni mu fi tare moom ëpp na ow ndo la ñu pare na lépp fi wow amatul xare jóg ba ci dow mu tigi ndaare moo dëkk ci blow ngëm di yara yow yëkkati ko yàgg ci nekk ci combiné ko góor ndànk rek bul saalit gëmal defal ndànk rek bul saalit mere ñëpp lemu ci néeg bi naan mer bi bu ma yee dëggalal sa bopp ni Mohamed Ali soo bëggee dégg bu ma yee doom yëpp màgg naan papa stroma yee xaalis amul xet fëgg jaay wala ca luuma yee tegil tuuma yee lu yomb duma yee fexeel ba jëf buy wax boo ne jëpp do bokk ci muuma yee yëngatu day teggi tuumaay jàmbu xeebu boo gorul yettul pantere moo lay fat ba di lëppee bu ndool góor ndànk rek gëmal góor defal ndànk rek bul saalit góor ndànk rek bul saalit gëmal góor defal ndànk rek bul saale jamonoot laaj yëngatu ndax fépp taga bare ñi jaay jën wala sax dëgg jémbe wër bu waati dawal si kuwaati waa bomba say cembe suwek suwek tox chicha léegi bësey lëmbe li graaw na taay la te faay te faay la télé la ni promotionné fu ñu jëmee Sénégal ñoom ci daay la Dakar na dox normal elle s'en sort ku gën a sës mooy gën a fës li gone bës la ñoom gi daj bépp di fekk rëb gi feeñ réel côté góor di biñ fen di géej baatu diñ disparaître rare boo xamatul fa nga jëm dellul fa nga jóge yoon ana ngëm jom fu laak fayda moo doon xalli na suba gi pare ndax lekk na coow ñu ngi ci xare ku nekk na joow ni mu fi tare moom ëpp na aw ndala ñu pare ne lépp fi wow amatul xare jóg rëba ji blow ngëm ndaare mooy dëkk ci blow ngëm di yara yow yëkkati ko yàgg ci nekk ci combine ko góor ndànk rek bul saalit gëmal góor defal ndànk rek bul saalit góor ndànk rek bul saalit gëmal defal ndànk rek na suba gi pare ndax lekk na coow ñu ngi ci xare ku nekk na joow ñu mu fi tare moom ëpp na aw nda la ñu pare ne lépp fi wow amatul xaare jóg rëba ji dow munti gi ndaara mooy dëkk ci blow ngëm di yara yow yëkkati ko yàgg ci nekk ci combiné ko